vidéo euh, waa ma dégg wax da nga. waa ji waaye nañ ko génne. non dama ne kon bu génnee man sama bopp amul. amul man kay wax naa leen ko kon nag ñii wax naan dañoo am vidéo bi ay vues bu boobu su fekkee vidéo boobu am na fenn fu mu génn si réseaux sociaux.

donc loolu li ñuy wax yépp dégg ci ay pour man honnêtement ku leen dégg ñu wax dañ leen war a parce que door jigéen moo war a de mi ku ont jigéen dañoo def groupement am ay yu nekk région bu nekk ku door jigéen ñu woo ñu ñëw nox la suñ ko defoon léegi Sénégal door jigéen Euh, Amadou waa léegi jàpp bi tamit ñun lan moo tax ñu woola fi jàpp moom moo ñu intéressé nan lañ ko jàppe est que yow am nga ci ay nouvelle non loolu loolu moom mun naa bañ a débat en tout cas jàpp nañ ko euh, jàpp nañ ko loolu maanaam détails yi nag moom ñu xaar gars yi ah. gars yi officiels ñu génnee ko ñu wax mais en tout cas ce qui est sûr mooy moom jàpp nañ ko waa léegi nag affaire Dieynaba bi nag moom fan la toll léegi yéen am ngeen ci yaakaar pour ñu bàyyi ko bu yàggu waaw loolu nag moom yoon mooy def liggéeyam rek dañuy dañ koo daan ndax li mu def dañ koo daan parce que dafa collecté donc loolu yoon moo ko daan ñetti weer ñun lu ñu mën a def lépp si yoon lañ koy teg dem def appel xool mu ñuy moom indee ay firnde yu tax ñu bàyyi ko ndax jàpp naa ne yoon bu defoon liggéeyam si premier plainte bi bi mu duggee kon lii yëpp du am mais teg buñ ci tegoon tànk moom loolu kese moo moo xawoon na doy te li may préciser te parce que loolu dama ko dégg dama ko dégg ci ay nit yu bëri bëri bëri bëri bëri ñu koy wax naa noo jigéen ñi xaalis la ñuy topp parce que dañu gis ay photo waa ji mu nekk Europe wala je ne sais pas waa ji amul fenn fu mu dem fu jeene ba musul dem te gëm naa ne waa bimi muy kum ndax jeena ba njëkku ko genn Sénégal no ndax jeena ba tuki. ko tukki bu ñu remonté premier tukki waji so moytul jeena ba moko ko tukki wa léegi Amadou ma laaj la ah. yeen man dama dégg ne Kër Mbay Faal ma déggaan na yeen euh, fee fee la jeena ba dëkk kaolak Bongare non non Bongare bi jeewoo kaolak la judo. man kaolak la judo. ah Bongare la judo jeewoo bi muy ñëw bi muy dem dakaar CM1 lay def. Hmm. donc yaroo Kaolack bi moom loolu leneen la mais Kaolack la juddoo mbaam mbuur la juddoo sax mbuur la juddoo dem Kaolack bi muy am un an bi bi muy am bi muy def sem 1 la dem dëkk Dakar ba tey musaatul dëkk Kaolack donc dëkkoon na Kaolack loolu vérité la mais yaroo bi moom je pense que kuy def CM1 kooku yaroowul foofu. mais ki dama déggone ne den la porté won plainte lan nga defone ba waji ji porté la plainte. non waji ji eh, euh, est-ce que def néna dama ko euh, dama ko diffamé quoi dafa démon pour porter ma plainte mais yaakaar na né plainte bobu amul amul ben euh, mais dégg na ñu né procureur bu sadik bi moko né gënal suma bureau ta bo fi ñëwaté dina la japp hmm, loolu man loolu la dégg. Namde. na am de. en yo Amadou da nga dem ba Matam andak ay agent nga di ko wala wala Tamba. way anduma kenn man kesse ma dem anduma nit maram maram kum anduma kenn man kesse ma ko dur ndax munoo do sama rak ba pare tek ci sagama ma bëgg bëgg di dox ni sal mom di dox di dem loolu mom say yi la wax rek. sénégalais yi bu ma buñ bu ma amoon su su ma mënoon wax ak ñoom dëkk région bu nekk day am cent góor yu taxaw. mais Amadou ci biir dóor yi ci biir dóor yi est-ce que bi ko dóoree nàcc na maanaam noq ko noq yu jaar yoon. <laughs> non damay bañ kenn àtte xam nga mën nga dóor benn nit ñi àtte doo toggalaat mais ndax ko ba sa xol bi sedd ne ki dóor jigéen man kéegal naa ko ndax yow sa xol seddoon na ci noq yi. en li leer mooy sama sama benn dóor rek mën naa gaañ donc loolu moom garaaw. léegi gis nga suma dóori Kaolack gi moog dóori Kaolack gi bu <laughs> ak yi nga ko nokk bu gënoon a métti. non boobu xam nga dañ la tëjoon si nekk quoi te fële. lañ am na benn instant da ngaa sa bët yi. ah mais Amadou Soxor nee na ma bële dañ laa tëjoon si néeg mais bi bii moom foo ko foo dóoree waa ji. no bii si biir noo district bi la woon rek quoi mais. Ah, ah su ma bos a gën a métti man man den ma dajale woon benn place ba ma normal. <laughs> non non non c'est que non c'est il faut ñu il faut maanaam il faut sérieusement que sénégalais yi ñu yeewu sa waay Alioune Badara su fekkee dafa am leen lu ko métti woon si Dieynaba man magu Dieynaba te waa ji nee naa la bi mu takkee Dieynaba ba bi may demaat maatam. benn yoon laa ko mës a gis ñaarul waaye war na ma war na dégg samay wax man mii magu ba su ma woowoon ni ma ba dafa def lii wala lii wallaahi man maay jëlal Jeynaba oto fay ko mu jëli ko fu mu munti nekk indi ko ci kër gi ndax ba am na fu mu am na fu mu dëkk fi mu dëkk moo gën fi ko Alioune Badara yóbbu donc pourquoi ñun may dégg nit ñi non famille am ñoo def lii famille am ñoo ko famille am je ne sais pas quoi pourquoi ñun duñu jëli suñu rakk sa way loolu waxu dof la bu ñu yeggoon li li ci xew yépp sa way loolu du ci am nit ñi nañ nañ dugal seen bopp yi ndox amul benn lu nit lu jigéen war def ba góor di ko qui wax Amadou Amadou doguma la yàlla bu la yàlla dogal dog jay na ba bu ko yàlla génnewaatee ci jàmm ba mu delluwaat ci ay yëfam na ngeen fexe ba kuy ñëw parce que waa ji nee na ci deux semaines la ko xam ci deux semaines la takk gi am pour man tam erreur boobu tam non non côté boobu moom foofu erreur bu ngan na ngeen def Amadou parce que nit mënoo leen ko mën defal nag defal nag defal nag donc man personnellement mun naa jàpp mun naa mun naa jàppee sama bopp responsable famille bi dëgg la dégg nga donc man je suis pas maanaam du ma maa ngi nekk dakaar chaque deux mois à peu près wala parfois moins man awma temps di gérer ay détails xam man lan laay def sama rak li ko li ko war a yar si àdduna yëpp teg naa ko si yoon boobu noonu mooy sama rak bi mu waree jàngi fayal naa ko école mu jàngi lépp lu mu war a def ci àdduna defal naa lu mu war a def fexe naa mu def ko pour yeewu bim bu bu waree génn xam àdduna bi pour mën a am beneen yeewu tamit génnee naa ko mu génn xam àdduna donc man leer na ma ne sama rakk doful man mii gënuma ko muus peut-être dama ko mag rek waaye gënuma ko muus donc sama rakk su indee nit ne kii daf ko bëgg sa waay man loolu du ma si interféré wu sama yoon nekk si magum jëm. ah da nga cee war a interféré parce que nag yow. yaa kilifa bi ndax problème bu mu amee. xaaral lekk Amadou ñun ñëpp dañ fee toog pour na ba comprendre ah. nga mais tamit erreur boobu tam da ngeen koy nangu ndax def ngeen ko parce que deux semaines mënoo cee ñëw nga may ci nit jabar. xam nga lu tax parce que ñun Sénégal lañ nekk dañoo am ay culture loolu bu fekkee tubaab la mën nga ne sama yoon nekku ci c'est sa vie et tu vois ak tu mais wax dëgg yàlla responsable famille nga nit bu ñëwee di bëgg sa rak waroon ngeen koo càmbar ba daj ko ba deux mois trois mois sax pour maanaam ngeen xam kan ngeen di may seen rak ñun ñëpp jay na ba lañ àndal mais tam heure da ngeen ko def parce que da ngeen koo teel a bazarder ci deux semaines Mhm. xam nga man xawma ñaata temps lañ def non waaji moom moo ko dama jógee Sénégal non mhm. loolu moom ay waxam la rek loolu duma si doon suma doom ah, euh, man maa ngi jógee Dakar le 28 janvier départ Dakar 28 janvier si guddi yegg si fi euh, dem le euh, le 29 le 4 février 5 jours après wala 6 jours après sama yaay wooma ne ma am na ñu fi ñëw ne dañuy dañu bëgg waxtaan ko waxtaanu comme jabar moom moo nekk foofu jamono jooju noonu moom moo wax ak sama nijaay yu ñëw waxtaan ci bi ci date le 10 ma Dakar le 9 ça veut dire que man dama dem ñibi 10 jours après donc léegi man su ma ñëwee le le neuf vendredi ci guddi xam ne waa ji du waa léegi damay tas sëy bi mhm. rox ma loolu duma si dugg parce que mhm. après lan lan la ñuy wax sama rakk sax mun na faa jaar euh, euh, euh, ba ma avis Amadou sama amado moo yàq sama sëy oui maanaam li rox su laajte waaw te normal mu laajte ko parce que bëgg jey naa mais yow sa tontu bi Hmm? dafa tontu rox mooy na lan jàngal neen suñu rak yóbbu neen ko mu tukki ubbi nañu xelam ci àddina te boroom xel la ndax gënuma koo muus ah. kooku danga koy doyloo ba bu indee xaj na la moom laa bëgg nga may ko xaj bi nga may bu dee lislaam loolu la nangu ndax képp kuy wax laa ilaha illallah su ñaan see may ko waaye nag ah. baax na wala bon na loolu c'est hmm. autre chose beneen bi ma gën a neex nga ne bi ma ñëwee xool ñu takk ndax dama war a tas say bi déedéet nit day am deuxième chance yàq ko amaat troisième yàq ko amaat dix-huitième yàq ko am ba quatre quarantième chance quarante mu door a baax kon bi nga ñëwee gis ne du waaja waroo tas waroo wax da nga war a yedd war a ñaan su demee nag ba def yi fi doomaraam imbécile yi mu def rox téegal ndeem ni mu téegalee ndeem rek c'est tout ak tam duma yi nga ko dóor rek man moom si loolu laay ci Amadou yow li la war. waa léegi yow Amadou est-ce yëgoon ngeen ne waa ji fase na sis jabar. wala yéen xamoo leen ko après ngeen ko xam. loolu loolu kenn mënu koo xam ndax doo ko dégg fenn. Mm-hmm. coow lii ay mbokk Alioune Badara amul kenn koo si laaj mu nangu loolu xam nga am na waaju ñu dugaloon keroog nu mu tudd euh, xaw ma euh, fàtt naa tur bi de dugaloon nañ ko keroog bi Alioune moom moo dugg Alioune dem Hmm. kooku biñ boo ko laajee da lay wax xamuma waa su ay mbokkam xamul ñun est-ce que mun nañoo xam loolu. possible lut. ah waa ji tam est-ce ñun tam nag ay mbokk indil leen. <laughs> mun naa la est-ce bi ñu ñëwee si jàkk ji bi ñu ñëwee si jàkk ji ñi ñëwoon ñaan ci minimum mot nañ vingt personnes amul kenn si ñoom ku nangu woon génne carte kenn si ñoom amul kenn ku si nangu woon génne carte d'identité donc man yooyu bi mu amee ba pare damaa xamoon li ma xam rek jàpp sama ñàmbur ndax Alioune xaw a maase damaa xami nit yu ko xam donc loolu nag laa am pour laajte ay mbir li ma xam jàpp sama ñàmbur toog di xoole ndax man du maanaam duma yàlla mag laa mag nag moomu ma sama rak sama rak lu ma mun si moom mooy juste conseillé ko dinaa ko wax ne ko lii bu def lii boo ko defee nii la lii lii lii après moom mooy gérer vie yëpp nu mu ko neexee xam nga bi mu amee bac war a jàng man mënoon naa ne man finance laa bëgg na jàng moom su waxee ne man lii laa bëgg a jàng loolu mu wax ne loolu la bëgg si loolu lay dem man si man encadré rek laa mën mais mënuma forcé pour mu def ko que ce soit lii am am na ba pare jote nañ am na coow lu si am man dóor naa waa ji ndax dafa dóor sama rakk ndax bi ma li ma gën a métti si si si si euh, wax ji mooy si début ba fin dama mosul dégg waa ji am sentiment de culpabilité mooy mu nangu ne moom dafa juum ndax dama mus a wax ak bàjjanam jour bi ma jógee gis nga euh, gis nga amet waaw jour bi ma jógee bi ma jëlee avion six heures du matin wàcc Istanbul war a départ Istanbul Dakar mooy si ndóor yi ba mu amee. Mhm. wallaahi man maanaam sama liggéey presque chaque deux semaines ma ma voyage dem fenn donc man duma gan guy ri guy réer si aéroport wala buy def dara damaa toog si buntu géej bi Istanbul tarde avion bi maanaam av deux cent personnes yéeg si avion bi avion bi dem bàyyi ma fi ma toog man bu wu ndax maa ngi maa ngi xalaat kii maanaam ban dof la dof bu mun a dóor jigéen def ko nii ndax saa yi yéen dóor yi peut-être gisu leen vidéo yi en original mais bopp bu toj